Ousmane. Hmm. Sonko. bëgguma ci woon wax mais dinaa ci wax Ousmane. Sonko Massaly Sonko il a il a réussi quelque chose d'extraordinaire lenn rek la ci waroon yokk. mooy hmm. révolution économique. qu'est-ce qu'il mooy wax xale yi ne c'est possible mais mu ne ñi fi xale yi fi mer yëpp dañoo tax wane seen mer xam nga lan moo ñu dese ñun xam nga lu ñu dese ñun mooy déggu xale yi. xool lan mooy problème bi waxtaan ak ñoom orienté leen. mais lu tax nga ne daf ci waroon yokk révolution économique. loolu foofu rek la rajjee il a réussi il réussi à montrer que c'est possible c'est possible de finir avec certaines pratiques loolu yàlla defal na ko kon nañ ko ko nangoo mais dama bëgg ñu waxtaan te ak rek tax. Hmm. man je ne suis pas euh, faruma fii faruma fële man damaa ñëw. indi sama sama concept ne benn ndaw ma utal ko pexe cela veut benn ndaw ma utal ko métier benn ndaw ma utal ko formation wala benn ndaw mu am liggéey yaa ngi dégg mais dama ne nit su defee dara da ko koy nangul nit su defee dara surtout su baaxee da nga ko koy nangul il faut faudra impérativement may mun a si on veut la paix pour le Sénégal mu surtout mu durable comme ni ñu bañ yi fi amoon bañ fi amati ay xale yi di taal ak di fay ak di nangam pour mu bañ fi amati il faut ñu dem waxtaan ak ndaw ñi parce que ñu xale yi ñun lañu yaakaar. mais mais mais ngay woowee ne lan nga bu ngay woowee pour yow révolution économique bi manqué. dans le programme de Ousmane xam nga xam nga xam nga révolution économique programme Ousmane du ma ci wax dama ne man daa wax man xale yi lenn rek moo leen manqué mooy dañ leen waroon orienté si révolution économique. xale yi suñu gëmoon wooru deux ans deux ans Sénégal dépassé fii mu nekk. mel ni quel concept révolution économique bi selon toi. mais bari na bari na may mën a xoolal euh, marchand ambulant yi le secteur informel est-ce que am nañ tey benn appui état am nañ ko fu ñu nekk toog fa miin fa ñu xëy suba toj ko nangam nangam ils sont restés à eux-mêmes. kooku xanaa moom fekkee nga ko Sénégal fii nga dëkk quand même fekkee nga ko du dëgg te nangu nga ne xoolal tey tey tey tracé tracé Fatick bi may mu ne on a des terres on a des terres suñu waxtaanoon ak xale yi jël ay projet yu leer jox leen génn financement jox leen encadré leen mais xale yi ku ci nekk toog ci ci raison bi nga dëkk def fa sa activité économique waaw mais waaw yéen tamit da ngeen ñeme populisme yéen da ngeen di nekk di raay. xale populisme non xaaral rek. populisme xaaral rek c'est-à-dire on peut pas dire xale yi dañ doon toj di yàq donc dañ doon war waxtaan ak ñoom. rien ne justifie xale yi di toj di yàq réew kenn du ko toj kenn du ko yàq parce que da nga mer xaaral xaaral rek muy muy mm-hmm. benn beneen bi mm-hmm. marchand ambulant yi bu ñu tabaxee ay marché mm-hmm. jox leen mm-hmm. dañoo war a nangu dem occuper marché yi duñ nangu occuper marché yi mm-hmm. euh, mun réew mënuñu ko développer en laissant les gens euh, vivre dans l'anarchie ñu jël chaussée yi occuper ko doo mën a circuler doo am oto oto oto du am fu mu fu mu jàll embouteillage bi metti quand tamit boo loo bëgg-bëgg réew mi ak loo leen wut wut tamit da ngeen di am vision à long terme vision de développement boo xam ne dañ koy assoir ci organisation aussi Maïmouna je suis le je le dis suba dama koy waxaat démb waxoon naa ko je condamne man man man Mamadou Yatassay je condamne violence sa dóor saaga toj ak beaucoup de fermeté kon man encouragé wu ma loolu loolu leer na si sama tontu boobu leer na dama ne xale yi su fekkoon dañ leen utal marché yi wa approprié may mun a ma ay marché jeudi marché samedi mi ngi am ba tey est-ce que danga fay gis benn coow wala benn bruit may mën a ñëpp amuñu moyen wu dem ci magasin ñëpp Sénégal yëpp amuñu moyen wu dem ci magasin foog ñu dem ci marché jeudi dem ci marché samedi yi xam nga lu ñu soxla encadrement organisation may mën a da ngaa bëgg dégg dëgg te yàlla rek tax ñu waxante dëgg en tant que sénégalais te yàlla rek tax may mën a niveau bi population sénégalaise nekk tey mooy métit bi ñu nekkee nii pauvreté bi extrême bu extrême moo am Sénégal may mënu je parle ak beaucoup de sincérité dëkk bi dafa metti nga xëy suba fekk xale bu yor taabaram def si deux cent mille par exemple nga ñëw daj yóbbu il fait quoi après il fait quoi. mais warul bu bu bu bu warul installer fu ñu fu ñu fu ñuy tere aussi. may mun a kan moo yor mission régalienne pour defar yooyu yëpp. d'accord donc c'est l'État <laughs> kan moo ko yor kan moo ko yor. ah ku ko yor du état. waaw def na ko. mais ki yor magasin ki yor. table ñëw toog ci kanam ndax def na ko tu penses que juste aussi. ndax def na ko. ah ndax def na ko. non am na lu mu ci def am na lu mu ci def mais mu a may mun a wax naa la ko sànq dina la ko répété dama ne am na ay citoyens sénégalais yoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi rendre service seen réew te xaaruñu état xaaruñu mairie xaaruñu ministre li nga xam ne mooy dëgg te ñu war ko waxtaanee il faut que ñun sénégalais ñu nangu di waxante dëgg surtout suñuy wax ak suñu njaboot parce que booy xale yi suñuy njaboot lañ soo si amul rakk am nga ci jarbaat et cetera il faut ñu waxtaan ak ñoom lii dong moo tax sànq ma tudd cas Sonko parce que réussir na jug taxaw wax ay idéem te li muy li muy kaas li mu wax yooyu yëpp dama ne ren rek a ci manqué mooy révolution économique